Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخ تجاني الذي شاع طريقته بين البرية برهان إبراهيم ورضي الله عن شيخنا وسيدتنا wa rabbina wa walidina Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy wa jamii'a muqaddamihi wa xulafaa'ihi ajma'iin wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu doon ñu taxaw ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu doon ñu dëgër waaye ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu doon ñu def dëgg-dëgg julli waaye ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu doon def ci réew mi jàmm waaye ñaanal yàlla borom subhaanahu wa taala mu defal ñu sutur ànd ak alaxira waaye ñaanal yàlla borom subhaanahu wa taala bis bi ñu mujjee ndox ki nañu nekk waaye nekk baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tabarakallahu di nuyu di ziara xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké atala umruhu wa ayyadahu nasara di ko ziara di ko ñaanal rek yàlla na yàlla dolli guddal fanam gis nañ taxawaay bi mu taxaw ci réew mi gis nañu taxawaay taxawaayu maamu waaye gis nañ mu taxawaay taxawaayu baayam waaye gis nañ mu taxawaay taxawaayu sàngam boobu di Seydina Muhammad di ko ñaan rek yàlla yàlla doon di taxaw ko yàlla yàlla doon di sàmm ko yàlla yàlla doon di dëgëral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu buñ ñu waxee ni mooy maam borom Tuubaa duñ ko duñ ko miin ndax doxee na ko tabaarakallahu laysal fadaa man yaquulu kaana abi waaye ma di fadaa man yaquulu haa ana zaa Sëñ Tuubaa jur la rek taxul nga doon Sëñ Tuubaa waaye da ngay dox ni sëñ Tuubaa a doon sëñ Tuubaa kon moom bu ci jawwatu maam borom Tuubaa la bokk après mu doxee ni ko tabaraka baax ko dul di ko ñaar rek yàlla musal ko ci cat yàlla wattu ko wa sallam tabarakallahu la ñuy nuyoo xalifa général de Tijaan atala umruhu di ko ñaanal moom it yal na yàlla dolli dëgëral ko yal na yàlla dolli sàmm ko yal na yàlla dolli wattu ko tabarakallahu moom it hakaza ni sëñ Muntaxa bu ñu waxee ne mooy Cheikh Seydi El Hadj Malick kenn du ko laam-laame wa tabarakallahu ci dal bi ci modeste gi ci yar gi tabarakallahu waaye ci xam fu muy teg tànkam di ko ñaanal moom it yal na yàlla dolli guddal fanam yal na yàlla dolli sàmm ko yal na yàlla wattu ko ak mboolem kilifa diine ci kaw suuf waaye noonu yi ñooy mboolem xalifa général yi ci kaw suuf bàyyi ñu kenn ñaanal leen yàlla rek yàlla yàlla doon leen dëgëral waaye di leen ñaan tamit ñu président du Sénégal di xaaj di ko wax ni rek ni mu ni tànkam ci ni mu mujjee discours mu discours mu mujj bi fa nañ ko di ko ñaan rek mu doxee ko rafetlu nañ discours bi lool wax dëgg yàlla waaye tamit mu doxee ko ndax réew mi jàmm lañ comme ni ko waxee yàq baaxul te loo war a wuti boo ko yàqee da ngay sonn kon fa tabarakallahu di ñaanal tamit opposant bi opposition bi ak ñi nekk société civile bare nañu réew mi bare nañ pàcc yi bare nañ waaye ñépp nag leen rek moo leen ñor muy réew mi comme suñu bàyyi njaga may doon waxee naan wute yi mën na wute yi mën na gis yi mën na wute gis-gis yi mën na wute gis-gis yi mën na doon bañ doon benn waaye ñun ñëpp defar dong mën a tax a jóg loolu la ko suñu bàyyi njaga mbay doon waaye mu ne gis-gis si mën na wute waaye nag bëgg-bëgg yi mën a doon benn tabaarakallaahu ak kenn ku nekk ak ni ngay gisee kenn ku nekk ni ngay gisee waaye yaakaar naa ne leneen rek moo leen ñor muy stabilité réew ak jàmm réew mi kon yàlla yàlla defal leen jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di jaale nag société Sénégal yëpp waaye di jaale société Afrique yëpp waaye di jaale monde bi yëpp suñu bàyyi boobu di Thione Seck di ko ñaanal rek fu mu jëm yàlla na di ko ñaanal di ko jaale mboolem société Sénégal bàyyiwu ci kenn waaye nag particulièrement nag njabootu boppam ñu leen nag bu baax waaye nag barakallahu ki ci gën a miin mooy ki ci gën miin nañu ko sax ki ñuy gën a dégg turam barakallahu muy waale ñoo ngi koy jaar bu baax a baax baax baax di ko wax ne rek bàyyi woyoon na ko ndax bi xaritam bi nelawee waxoon na ne ne woon na xaw ma kañ la xaw ma na la xaw ma nan la ñuy dikkee waaye bis dina ñëw dinaa fekk sama waay kon mel kon bàyyi woon na ko xel bàyyi xel mu ko bàyyi woon xel nga xool tey tabarakallahu moo tax mu wax ko te mujj naa ko dégg muy wax ci réseaux sociaux yi kenn ku ne war ngaa bàyyi xel dee kenn ku ne war ngaa bàyyi xel bàmmeel ba li ngay def nga xool sa diggante ak sa borom kon fa ci waxam yooyu rek la ñuy mën a jàpp kon yal na yàlla xale ko àjjana yal na yàlla tere ko ci ban sax na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag ñàkk na waaye musiciens yi heure musique ñàkk nañ waaye nag bu ci mel ni moom dana jafe trop bu ci mel ni moom ci parole ci ñu mu lay ñu mu lay delloo si waatee ci nu mu lay ñun bañ na ko ba ndongo daara yëpp daanaka bu ñu déglu Thione Seck rek Ndiaga Mbaye déglu ndaxte paroles yi ni muy génnee paroles yi wax yàlla dafay nekk loo xam ne dañ jàng boo xoolee suñu bàyyi Ndiaga Mbaye wax bu ñu mujjee ma koy déglu waayam bi muy way naan ndaanaan yi yéen laay wayal mu ni yaa war a wax yaa ñu saf moom la tax a moom la tax a wax loo xamul xoolal yooyu nga xam ni mu ni way ñett la. te nga xam ni kon àddina bu jëkka a ndaanaan danaan seeti moroom ndaanaanam waaye léegi ndaanaan danaan danaan ko moytul diw waaw mu ni kenn ku nekk ak kala saf waaye yaa mën gars yi kenn ku ne kala saf nga dégg fee suñu bàyyi coon sekk tamit wax dëgg yàlla woy ci ci sëriñ bi yàq doomu aadama ngir la ngir poñ xotu àdduna ay woy juróom jaaxle la te moo doon seen yaakaar te kon nga xam ne kon kooku bàyyi na xel ne bis dina ñëw dina wuyu borom subhanahu wa taala bàyyi na xel ne bis dina ñëw dina wuyu borom ko àjjana ko ci barsax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ay naxaate ndax wuti nag ñi wax dañuy saagaaka xase rek boole ko ay tëgg yu xumb waaye moom waaye yaakaar naa ni ñu koy fecc sax dañuy yiw waaw soo xoolee kii ñu koy fecc sax dañuy yiw nga xam ne kon woon na xel yàlla kon fa tabarakallahu jabar gi fi des yéen yaa ci ñoom loxo yéen yaa teg ci ñoom loxo mu mel ni li yàlla waxoon Seydina Muhammad rek mooy ñëwaat enchement cheka fa innaka mayitun dundal la neex bis dina ñëw di borom subhanahu wa te boo bokk na ci li bu gën a neexaat ci moom way bi mooy soxna gërëm soxna te dara xewawul ñun fii Sénégal léegi balaa ngay gërëm sa soxna rek dañ ko teg ci jaar nga ne mosuma def lu ma naqari wala mosuma wax lu ma naqari loolu nekk koo séer bañ a laal ñun nga ko def lu la naqari wala nga wax lu la naqari lenn kay mën a wax mosuma am lu ma naqari mu tëdd gi mu tëdd fii nii ma wax ko loolu moom boo ko waxee mën nañ koo gëm waaye li mosuma def lu ma naqari léegi waaye moom sagal na soxnam wane ne soxnam soxna su baax la prouvé ko wane ko waneeti ko kon fa tabarakallahu yal na yàlla barkeel njaboot gi waaye soxna si fi nekk ñu ngi koy jàll di ko ñaan yéen yàlla dool di ko dëgëral xam ne àdduna tëddee noonu ndax yàlla moo ne ish maa shi'ta fa innaka mayyitun dundal lu la neex bis di nga ñëw di nga dee wax bi maa shi'ta fa innaka mufarraqun soppal neex bis di ñëw laa teex day ñaar wala lu meloon ci jaaga xool ni mu meloon ci njabootu njabootu boppam bi xool lu mu ci Sénégal waaye tamit xoolee ñu ko soppoon ñëpp tey bis ñëw na tey yàlla teextale nañu ko yóbbu ko biir bàmmeel ñun ñu continuer di dund te bis yi ñëw ñu tamit daañu teextale ñu ñu sopp kon fa tabarakallahu yal na yàlla leeral bàmmeelam yal na yàlla leeral bàmmeelam yal na yàlla dëggal làmminam bu ko malaaka yi laajee mu a tontu yal na yàlla dëggal làmminam yal na yàlla dëggal làmminam yàlla bu mu gis lu muy ragal ci biir bàmmeelam yàlla yaatal bàmmeelam xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabaarakallahu ñu ngi seen émission bii di al ilm wa taalim ngeen am ne ko Oustaz Ibrahima Diarra fii ci Salam Vision wa tabaarakallahu tous les mercredis di ko ñu koy jàllee jeudi tous les jeudi à partir de dix huit heures incha allah rabbi fii ci Salam Vision di nuyu nag DG wa tabaarakallahu di Serigne Sam Seck di taalibe seen Cheikh Oumy Mbacké di ko ñaanal moom yàlla yàlla guddal guddal fanam di ñaanal suñu sëriñ boobu seen Cheikh Oumy ko sàmm ko noonu la ñuy ñëw fa bi nga xam bi di ko ñaanal moom yàlla yàlla taxawu di ko dëgëral ci barke Seydina Muhammad tabarakallahu tey ñu nekk tey ci bindu faraa'id wudu yi muy faratay njàpp bari na tey ñuy jàpp xamuñu faratay njàpp ñaata la ndax ñoo gis nañ ñuy jàpp rek ñu jàpp koo ci laaj bi lan la koo ci laaj sunna bi lan la koo ci bi lan la koo ci bi lan du la ko wax te lépp loo si nekk am na farata am na sunna am na ngëneel waaye am na yu ñu sib am na yu ñu sopp wa tabaarakallahu ñu toll tey ci faraa'id wudu yi muy faratay njàpp soo la laajee faratay njàpp ñaata la sabaxoon daanaka juróom-ñaar la faratay njàpp buñ ba moo ci jiitu neel an niyatu mooy yéeni kon doomu aadama lépp muy def day ànd ak yéeni innama amal bi niyat wa innama li kulli imrin ma day ànd ak yéeni waaye bu àndul ak rek baaxul kon di jiitu mooy boo demee bay jàpp nga ni maa ngi fas yéene jàpp julli deux heures wala maa ngi fas yéene jàpp julli takkusaan wala maa ngi fas jàpp julli timis wala nga ne maa ngi fas yéene jàpp julli gay wala nga ne maa ngi fas yéene jàpp julli fajar kon am rek bu la laajee ban moo ci jiitu ne yéen moo jiitu mu ne waxas lu woo ak raxas xar kanam xar kanam bi bu ñu waxee mooy lii raxas xar kanam yëpp ñett yoon lañ koy raxas. loolu neen lu fa tabarakallahu ci farata yi la bokk mooy ñaareelu farata yi wala laajee far kon farata yi tàmbalewul ci nii kon ñi ngay tàmbalee nii loolu daan ci jàng incha allah rabbi wax la lan la waaye farata yi daal mi ngi tàmbalee ci yéene loo ci doftal li nga xam moom mooy raxas xar kanam nga ci doftal xar kanam googu loo ci teg waxas lu yéene yi ak raxas sa ñaari loxo yi ilaa fi xel ba sa ñaar toj kon mooy farat diggante fii ba fii moom mooy farat boo kon nag indi naa njat indi naa yéene indi naa raxas xar kanam indi naa tàmbalee fii ba fii loolu farata la loolu max su si massa bi ngay massa sa bopp boo nee nii jël ndox mi ndox sa ñaar loxo yi def ko nii dem bi ngay dem nii mu ne farata la kon am na dem am na dellusi buñ fi yàlla bàyyi naa ñu wax dellusi bi lan waaye dem bi nii daal moom mooy farata war warakallah kon indi naa li nga xam ni moom mooy ñeent waxas lu rijlay ñaari tànk yi ñaari tànk yi ngay raxas ilaa kaabayn ba sa ñaari dojoor mooy ñaari xuy wa tabarakallahu tamit loolu faratal ko inna juróom waddal ko ak sa kaw rek koy boole ko ràgg sa yaram bi wa tabarakallahu loolu tamit wax nañu faratal muy juróom-benn wal foor ak méngale doone ak gaaw mi taxaw lu yàgg dafa tànk yi wala taxaw lu yàgg def bopp bi ñuy toflante ñu di ko méngale bi ñu koy ni faratal kon juróom-ñaar yi ñu ngi noonu su na laajee faratay njàpp ñaata la neel juróom-ñaar la ban moo si jiitu neel yéene ban moo si tegu nga ne raxas xar moo si tegu nga ne raxas sa ñaar loxo ba sa ñaari conc yi ban moo si tegu nga ne masa sa bopp ban moo ci tegu nga ne raxas sa ñaar tànk yi moo ci tegu nga ne rag gi nga koy rag ban moo ci tegu nga ne méngale bi nga koy méngale fa tabaraka allahu moom mooy juróom-ñaari farata yi fa tabaraka allah kon ñu ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit ñaanal ci réew mi jàmm yàlla yàlla def ci réew mi jàmm du ñu fàtte fa tabarakallahu du nuyu suñu sëriñ boobu sëriñ Ndiagne Bousso nekk ba Mbàkke fa tabarakallahu waaye di doom ci waa Adama Mbaye waaye di doom ci maam Thierno ko ñaanal yal na yàlla di ko suuna yal na maa ngi lay ziar su baax soosu Adama Mbaye yal na yàlla taxaw ko duma fàtte fa tabaarakallaahu Baye Galas Niang Baye Galas papa yi Baye Cheikh Niang waaye di doom ci Baye Cheikh Niang di chéri Adja ñoo lay nuyu bu baax a baax a baax di la ñaan daal lañu mën ci yow ñun daal ñoo ngi ñaan ñaan daal lañu mën ñoo ngi lay ñaan bu baax baax baax a baax kenn yàlla doon la taxaw la bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lay nuyu sama doom soxna Daba Niang waaye duñ fàtte Soda tabaarakallaahu Cheikh Babacar Diarra waaye fa tabaarakallaahu duñu sant fa fàtte Wuri Mata Njaay di sama mbokku mbokku jooju moo fàtte nday naam Touré borom Mourtani waaye du ma fàtte ki nga xam ne fa tabaarakallaahu mooy Soxna Dieng di ko ñaanal yéen yàlla guddal fanam yéen yàlla sàmm ko doo fàtte sama yaay jooju Mata Njaay nekk Dagana di ko ñaanal moom it yéen yàlla dolli di guddal fanam di sama sëriñ di ko ziar sëriñ Babacar Diarra xam ne fu ma toll fii tey moom la tey liggéey ni ci lu bare bare bare bare bare bare di ko ñaan rek yàlla yàlla doon taxaw ko sàmm ko sëriñ Babacar Jara wa tabarakallahu oustaz bu mag boobu yàlla yàlla taxaw la moo fàtte soxna may buy waaye moo fàtte sama bàyyi boobu di Papa Mor ko yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla dëgëral ko nuyu naa ñëpp nuyu mboolem wa tabarakallahu kuy tax bi di al ilm wa taalim nuyu diaspora bi nuyu waa mujahidina waa muxlisina waa ko bañ dawa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.